ñu ñu bokkal dudd ci kaw suuf ci juróomi carte ak moo la ci nekk ak mboolem li ci nekk ak mboolem eh, ci nekk mboolem jullit ñi ci nekk mboolem jullit ñi ci nekk ñëw ma ci kenn ñëw ñëw ci kenn ku dul nun ñii nee na nee na nun rek la ñee kon mu ngoog yoon waa ngoog kon yoon waa ngoog leen ci ci kenn mag nee na bu ñu ci kenn mag muy démb muy tey muy tey muy ëllëg muy ëllëg yoon wi rek ngoog yoon wi rek a ngoog jërëjëf Mbacke. xel dal na ci bu baax a baax. xel dal na ci bu baax a baax. fa tabaarakallah. fa tabaarakallah. nan sant bu baax a baax. nan sant bu baax a baax. di gën di soññ suñu bopp waxtu nekk. di gën di sonn su suñu bopp waxtu wu nekk. gën di delloo suñu bopp sëriñ bi. gën di delloo suñu bopp sëriñ bi. bu nu jamono ju jamono ju rawatina jamono bu ñu amee jamono ju mel ni jamono tey ji ak bisu guddi tey gii muy bés bu rëy ci nun di guddi gu màgg ci nun kum fekkoon ngay nelaw di xaran kum fekkoon ngay nelaw di xaran war nga ne xefeet delloo sëriñ bi sa bopp delloo sëriñ bi sa bopp sax dàkk ci sant ko sax dàkk ci sant ko sax ci liggéey sax dàkk ci liggéeyal ko te yàlla tax. mënaluñ ko dara. mënaluñ ko dara. waaye am am na ko luñ ko luñ ko am am te ko koy mënal. waaye am te kon luñ koy mënal. muy takk suñuy laxasaay. muy takk suñuy laxasaay. sax dàkk ci sant ko. sax dàkk di ko liggéeyal te yàlla tax. sax sax di ko liggéeyal te yàlla tax. nee na jërë ngeen jëf na ñëpp tàllal jërë ngeen jëf na ñëpp tàllal ñaanal ko bu baax li mu bëgg ci nun li mu bëgg ci yoon wi li bëgg ci lislaam bi loolu rekk baax ci nun amiin Mbàkke amiin amiin barke amiin barke boobu amiin barke sax amiin barke amiin barke